yàlla na nga jàppandal ak njub ci sunuy mbir rabbana aatina min ladunka raxma wa hayyi lana min amrina rashada rabbana aatina min raxma wa hayyi lana min amrina rashada xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ñaan yàlla darajay sax it te mu dëggu sunu borom dina ko ci jotale donte ci kaw lalam la faatoo shahid mooy jullit bu faatu ci xare xaddis bi muslim nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man saala allaha shahaadata bi sidqin ballagahu llahu manasila shuhadaai wa in maata ala firaashih rawaahu muslim waxtu julli yi suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simili ñett te waxtu bu tegal ñaar fukki simili ak ñett tàkkusaan ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett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 yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amiin